Deus poderia dizer, يعني الكتاب الكتب إذا قلت باب النجاة لكل هذه الدعوة الكبيرة فمن يدعو أن يكتب جدتك من دولك ما يكتب لهذا مفاقة الأجر سوف من يدعو أن يكتب هذا الكريم سوف من يدعو أن يكتب هذا الكريم ஆயிரம் கேளு எட்டு கேளு அஸ்தகுருடா கேளு சலாத்து கேளு நாய் தெரியல gëy da ñu am ci lu ma jox la juróom fukk da ñu am ci lu ak suñ dëgg ma jox la téeméer ci laa ilaha illallah nga ñëw ci ba ak yaa ma jox la bëgg si dëgg xel ma nekk ci rëdal na bii tarixa bii rëdal na bii yàlla na bu la gëy may ba tàqale laa gëy ci may jur day day nekk nit mais boo fàttoo leen boo nekkee nekkal est ce que Mouhamed yéen ñi nit ñu ci. الذي جعل للذي أصابك لا يعبث العمل عمل ولا يكون من الخاسرين لا يشري المبوك يكسب اسم الله فسيقول لك لا غير ذلك lazar etamna haliya ay gëyma ay sara ay saxal yoy bu nek joom ñaar yu ndax nit nga ñu duggal sama do joom ñaar yu joom ñaar yu ko moy yobbu nit sama do yalla way ke le faati am ne joom ñaar aya ko ko def ci sama do say na sa andi le tay mu nek joom ñaar yu ko ko def ci sama

juróom-ñaar nekk juróom-ñaar yi dugg ci safara Seex Tijaan ne ko jot leen ci safara ñu ne ko moo ñu jotee ci safara moom ñu ñu ko ñu ko ñu ko àjjana juróom ñetti bunt moom ñu ñu xam dara tudd ko boo ko tëjee ci juróom-ñaar yi borom juróom ñetti bunt yàlla kenn ko war koo soxla bu ma sañoon biir fees Gloria a Dios. dafa ne ndaxte fii ngeen ma dugaloon démb ak a tàng ba mu génnee imaam daf ko ne mboolem ku mës a dugg ci xabru Cheikh bii boo duggee ci kees ba ci ay sëtam ak i doomam ñeme wu ñu ci kees ñoom ñëpp dañ ko wëroon di xool Mawlana Cheikh Say ndax daf fay des mu ne leen rus naa ànd ak ñëw fee di ziar Cheikh Tidiane ma fiy des maqaama ba ma yoroon démb ak a tàngoon moom laa yor wax tey kooku mooy Mawlana Cheikh Say moo sam gis you. sa xóot ba mu génnee commencé liggéey pétrole bi ñu xeex ko kii jàpp jàpp xeex circulation bi jaar bi ci pétrole bi jaar bi mu ko jógee mooy Cheikh Ndiaye Cheikh Ndiaye kanam ak kër Seydina Cheikh Ndiaye loolu baax na Seydina Cheikh mboolem bi commencé di ñëw mu naqari Cheikh Ndiaye waaw kon du soog di def xaalis bi dama mën a wala dama fay dem tawus waaye li ngay war a fekkoon ni ñu sotti maam Abdoulaye Niass di ci bokk def na nii bu fekkoon ni ñu sotti Alaaji Malick Si di ci bokk def na nii bu fekkoon ni ñu sotti wala lii yàlla yi di ci bokk. Cheikh Ahmed Tidiane nag mooy tëbbee mooy tëbbee de moom it du kull. képp ku seet dund moo lay seet. léeg-léeg nag ñu ñàkk ci xam dara ndax kat da nga gis moo ci fas. fas fas fas dina taxaw di nàmpal doom doom di nàmp ba nag di nàmpal doom doom di nàmp ba réer commencé doom di ci di wér di dugg waaye ngay jàngi ni léegi fii nii fekk bon la ko tax nga daw wala cër sa la koy tax nga daw moo ko jëlee ci ba tax bëri na kuy bàkku te la lay tax nga bàkku yaa ko jëlee ci sax léegi ci boole naa seetlu naa ko parce que day li maam nii moo ko ci Seexu Tijaan su ko waxee moo la def seet saa yi nga teg loxoom ba teg ci mbagg ba la ko seet la mos a jox moo ko jëlee ci góor gi tëdd te góor gi tëdd kenn xam du ko fay mu ngi ko jëlee ci moom mais gis nga fay fay la ñeenti nii rek ñoo am sañ sañ fii. mais mi ngi romb de te loolu rek lay toog frontière gis nga Rasulullah tànkoon ba muy xat mu ñor nga xam ne dañ ko ko dóoroon ci digg gànnaaw ga Mawlana Cheikh Imam Kabir Bari yore na ko waaye toxul woon na ci Mawlana Cheikh Cheikh nga ko xool Mawlana Cheikh Cheikh boo amee dara dem ci mu ne asalaamaaleykum wa rahmatullah. yéen Seydina Cheikh Ahmed ci biir yàlla nga sëf bu dees commencé nag diggante yàqaat yi diggante yàqaat yi dina law rek Seydina sax nga dina law rek ba mu yàgg mu ne ana damraam yi ma ne ko maan ji dangaa ñu am juróom-ñaari fan man di gis rasulullah juróom-ñaari fan man di gis yeneen ki say glace la ko dugal xal mu dugg xaloo moom damraa yi bi mu duggee xaloo rasulullah féen na ko waxal si Ahmada Tijaani na ko Seex na jaar moo ko ne ci turu yàlla bi ñuy wax yaa xaar برابریوں نے کیسے انجلی لین جانے کی ای دو ہے کیسے انجلی لین دور کی ای قہر کیسے انجلی لین دور کی ای سیفی مائے بین کو اہلی سیمنا سے اور اپسے ہم نے جار مولن لکی ہے کہ دریا لبکی وحیاء قادی ہے سیدنا سے اور اپسے ہم نے جار مولن لکی ہے Saya Anta Diagne suñu ñëpp yi ñett la doon mag moom muy may liggéey Saya naa moom wax na ko loo xam ne boo defee liggéey ba taw Cheikh daal di ñëw sawar jiw sawar parce que métis la Cheikh Anta Tidiane di métis la woon Cheikh Anta Tidiane métis la. na am আনতে পারলে তো বলছে সালামে যাবতে গেলে বলে মানে নলে কি ওর সালামে কি জানে প্রবলেম কি বিষয় মানে কি না আপনি এলি হচ্ছে খাবো নেই জান নাম গো সালামে যাবে আমি এর লোকে যাব ব্রন্টের ব্যাংকের উদ্যোগে মাধ্যম গেলে মাটি মাছ কেন বন্যা নেই কে পুলিশ সিস্টেম না আছে তার লোক যায় না Saya siap ko ɓokare debbo debbo ko yiyaade ko itu sewɗeɗar kama wallana itla on paron de terende tariqa bi commencé am def def jirka yàlla mbër mu mosa samp samp na noon bu ko opposé taxaw ci fekk dama ci adama salatu yàlla sampal ci Iblis mu nekk noonu moom di ko xeex guddi di ko xeex bëccëg ba yàlla ne yaa Aadama uskun anta wa zawjuka al-janna yow Aadama ak sa soxna tàbbi leen aljana waaye yow Iblis faxruj minhaa fa innaka rajiim Iblis daal di daal lu nar lu mu gàtt nga leen di leen yàlla lool ca gaalam ba la ba koy yegg am ñu opposé wu ñëw di ci gaal gi dañuy dem ay douze. Saya kata saya, yo yo kita belum ni kita lagi dia pun dah. Bela saya yo, bukti kita lagi kan kita dia ni kita dia. Kerbau perkasaan ni, bus yo dia kita kali ni kita lagi tu. Ikhlas orang ringgit. Ya kau pernah jumpa di mana mau muzi dia mungkin muzi lagi kau rasa mau bukan lagi. Abi lo hamil dengan dia dia fikir dalam kesempatan waaye dox leen jéem dafa di pare sol ci seen butéel ba pare saa lu leen métti ñu raay yonent yàlla moo jaar yonent yàlla Moussa ak Namru ak kii Firawna Moussa abal Firawna Moussa jàll kon bépp wëlliyu yàlla bu mas a taxaw opposé nañ ko waaye ña ko opposé mosu ñu am ndam ci wëlliyu yàlla boobu mosu ñu ci am ndam ba ci mu nekk ci teefere ñu ne yow am benn waa ñu demal génn instant ñu rey waa ji ñu wax takk yàlla bi mu demee dugg ci néeg bi yàlla yëkkati yónnee ci yàlla Isaa def takk yàlla mu mel ni Isaa ba mu yóbbu dugub ba def ñu gaaw njëkk laa am rey mooy lii yàlla ku koy xeex ku nekk jàngee xeex sa bopp waaye waaye nee nañu nangu wëli yu yàlla yi nee nañu nangu wëli yu yàlla yi. ba ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Abdoulaye pexe na ko ba yàlla wax ci tabax fii ci kii waa hablum min masad xam naa ñu dëkk Saalum xam nañ bu siisee fi mu jotee nga gis mbaam yaa ngi sàcc sàcc matt yi di wër rek damaa leen tudd xatam léegi ñu ne fii ci biir hablum min masad benn baatam ca bokk na. في جيدها حبل من نصر بارك الله loolu la leen yàlla amee kon tarixa bi noonu rek lay demee tey naa seet foog si ñu opposé ko waaye day jàll yàlla da ko doon seet jotal la lii nga xam ne moom lañ la dox mu nekk sauvetage nit ñi ku ko jàpp sauvé lu xeex beri beri beri bëri bëri ci sa Ahmada Tijaan mais réussir na la doon dox attaqué nañ ko côté bu ne ba mu amee am betul juróom-benn fukki at ak ñett da tuuti dapat bi mu nekk dundu Serigne Mansour def def fa fukki at ak juróom-ñaar juróom-benn fukki at ak ñett ak fukki at ak juróom-ñaar ci Fass mu nekk juróom-ñetti fukki at dundu Serigne Mansour ak Ibou Tidiane quatre-vingts ans la dund moom la dund. imam bi jaar la ci benn baaw lañ ko teg ndax ay watu salam yow moo ko yóbboo waaye sëñ naa seet bu doon benn baaw ak jéeg wala ñëw benn baaw nga war benn baaw nga war ma tax tarixa bi li koy xeex bari na de kenn du jàng képp kuy ba ngeen bëggee waaj a faatu ba ngeen di bi yéen ko defee rek borom faat damaa mos a toog benn bis benn waaye kontour moom danaa seet sa lool ñëw sama néeg la mu saas ma ne ko am ah, ne tey jii de gis naa fii tane si ma ne ko am ah, ne ma gis naa góor xam ne ku ko déglu daf ko toog ma ne ko lu koy wax ma ne ko alquran ak sunna ma ne ko loolu moom lañ topp yoonu kon dañ ko topp ko gaar alquran sunna lañ toppee yéene bi kon moom la sëñ moom la moom la ñoo seex say di wax dëgg dëgg loolu rek lañ ko war a toppee li loolu di ko loolu man ñu toppee ko lu may ma ne ko waaw ma ne ko ba bokk ci njabootu ah yéen ngay laajte ma yéen ngay laajte ma bàyyi ko loolu ñu dem ab diir rek biir Akaado hôpital yi gën a mag ci Dakar yóbbu la suñ xol bi gis naa ñu onk rek ñu génn jafe parce que nag loolu am bi yàlla su moom yàlla yi même yàlla yi seen déet yi tooke depuis la lycée de l'école. Comment la donner La tante est chérie. Tenez jamais, tenez sa famille à Tenez jamais, nous, pour gagner le milieu qui est à cette. Tenez jamais, gagner le milieu au ré. Tenez jamais, gagner le milieu à l'aide. Tenez jamais, gagner le milieu au ré.

murad Al-Quran murad di sini yang nanti dari ini na'astaghfirullah fi yawin Sampai sab'ina mata disebutnya kepada Rasulullah Ini adalah takfirullah ya Ya beliau wa takfirullah rabbukum Ilu kana kafar yursil sama alaikum mitara wa yumdikum bi amwalin wa banin wa yashhadukum jannatin wa yashhadukum anhar maa lakum laa tarjuuna lillaahi waqaar defe naa ni alquran la def boo leen ko jàng alquran xam ne lii alquran kon tarixa bi dafa am sukkandiku waay ci alquran ci baatu astaghfirullah te yonent bi yàlla noonu na ko waxal gaa yi ne rus naa leen la mbugal feeg yaa ngi fi dama mbugal nit ñi feeg yow yonent bi yaa ngi fi ci biir Yaudah bi ne sa di bi ñu la kuurilee kataraat bi rek fa ba sërëb ka yow maa di sa gis tal te neex lool day dal de bànneexu ci gis ba ngay gis kon soo bëggee yonent bi di la di la fàdd Cheikh Omar waxoon na ko de Cheikh Omar Fuuti yi taal dafa ñëw ci biir mbooloo yi di néew ba ci benn waa jox ko waaye jox Cheikh Omarul Fouti Tall loxo càmm ñëw Cheikh Omar loxo dafa dee doon jox càmm mu ne ko sama loxo day jël bi mu ko da mu ne ko déedéet feebar wala déet jox naa loxo koo xam ne dootuma joxati loxo boobu di parce que damaa gént gis Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma daal di ko jox loxo bi ma ko joxee loxo ba pare Jelajah laa jël sama kaala raxas ko ci sama loxo ne loolu ma joxee ci Siapa kenn sa Omar il faut ci yow ndax waaye li nga jël doon gis ndax waaye li nga jël doon ya boo ko gisee da ko xaar yi nga daa kok boobu ci ma gis tey ba tax ma banyak orang jujur Rasulullah yang tahu di sana. Dafa war na ko heure bu ma semua Rasulullah gisu moom kenn mën naa Omar xayin la ak miim ak raa xayin bi juróom ñaar Omar fukki dund miim bi quarante la ya. ñeent fukki xare la xeex raa Omar nga seetaan lépp sa zakkoon géej gi yëpp suñu àndoon takk ba benn géej gi nekkati fi man Cheikh Omar danaa bindal lépp ba mu mel. mais dañ ko nekk ci njiir ba tax Cheikh Omar lu fukki kenn la bind ko. bu ko defee ba tabaraka laahu tariqa bi xam yàlla moo ko tax a dog jël nga sëy yi di Ahmad Tijaani sëy yi di sama sànni bi ñu naan ah, nga Ahmad Tijaani yi. benn aaya la ñoo toll ci alxuraan fa hal antum muttaqinoon fa hal antum muttaqinoon seen nekk taalibe Seex bi ci jàll ci mel kat ba ngeen xoolee safara da ngeen seen waa safara ba ngeen xoolee aljana da ngeen seen waa aljana tant que amatu leen ko rek seen taalibe ci Seex bi ci jàll maa tariixa bi dafa ñëw pour xam ne yàlla boo ne boo ne boo ne xarit xaraafin ne بال محمد بن الدولاوي حارس البلاد بال محمد خالد حارس البلاد مولانا بزر سيد ناصر أي تعالى بس بم يعني سيد ناصر قلبي محمد القاري رقابك من قدم على هبان على رقبة كل مدين من ابن آدم إلى المكتب محمد القاري عندي بس عندي وقم يقول شو كون جو كده بريالي لقد نجاكم الضباء ما ما ما ما sama tànk teg naa ko ci Kalau mau koy wàññi. ah moom dafa am yëkkati loxo bi ñu tànk mandi kalian yang ngi rajo mereka ma ne ko alhamdulilah dañuy leeral mbooloo mi bu ñu yëg ko ñu xam ko mu ne kon nag monsieur le chef de village alxaaji suba ñu yëg nañu sa taxawaay mag nga ñu kilifa ñu ngi lay ñu ngi sago ku mu dem moom sanga kam lay sago aaw fi nga ko jëlee ñaareel fi laa ma dem. bu mu dem. yéen laay jiitaloo. bu dee sax nga toog yéen jiitaloo. lii dafa rafet. lii dafa rafet. lii sax bii ngeen ma defal. sax bii ngeen ko defal. dafa rafet. dafa rafet. monsieur le maire toog. ak yeneen toog. te ay kilifa toog. monsieur le ministre toog. monsieur le ministre Koungheul toog. imam Rachid toog. imam Rachid toog. sàngal sàngal kam lan moo fi des. sàngal kam dara desul bi ñëpp ñëw ne. sant yàlla. alhamdulilah sant yàlla. sant nañ leen gërëm nañ leen. ñu jox monsieur le maire. ñun sànni kàddu dana ay ganam